fii fekk fii champion bu ñuy wax jam ceeri doomu Kayar doom day Moussa jam ziar naa waaw maa fay maa lay bu baax a baax yéen ñëpp journaliste yëpp di leen fay bu di ziar tunu jëndal gi yëpp di nuyu waa tunu jëndal bi yëpp yëpp yëpp waa Kajoor waa Bawal moom nu àjjara bàyyi ma kenn waa Kayar ñu fa. ñu jàmm balaa ñuy sori. nga jël ko muy général Malika la moo dugal si moom. man ñëpp dama fee bàyyi di. eh. kon man ñëpp dama fee bàyyi. moo tax ma jël ko. làmb waxul dëgg de. su waxoon dëgg duñ bëri moom. da ngay làmb ci kaw la may fekk. ci kaw la may fekk moom. mais duñ bëri moom. laa laaj léegi mu ne amul dara lu muy tiis yow bu arbitre sifflé lépp lu fay neex moo li nga gën a mëne si lay fekk si muy xeex. bu ko defee daanu de. déet waay. bu ko defee dama ko dóom daanu. yow nga dóor sama ma ne ko daanu. barki Serigne Bamba xam naa bu ma koy wax nag ay comédien lay def mais bu xeexee ñu leen ko yóbbu. mën nañoo xaar kam ceeb bi ñëwoon digganteem ak Baara Ndiaye. yàlla na yàlla may wér nanam wér rek bu ko raw bu ko raw sax mën na ñëw. parce que affaire bi liggéey la rek te yàlla def na ñu mën ko trop ndax xam nañ ko mais nag xam nga nit ku nekk li nga def ci nga am dog dog amoon nañ dog dog yàlla suturaal nañu ba wér nañ bu baax a baax san na suñu bu baax a baax yàlla yàlla may wér a talak fekk ko lan la mën a xaar ci diggante général Malika non combat bi combat bu neex la combat di année la combat bii nii promoteur yëpp dañ ko bëggoon jandeer la ko yàlla wërsëgale maa ngi ñaan yàlla mu doon mu doon meilleur waaw moom laa bëgg man moom laa bëgg maanaam bu bëree ba pare mu doon miir combat daane ci xeex ci bëre ndax moom moom koo xam ne day xeex day bëre waaw man damay xeex damay bëre kon dañuy daje loolu moom mooy ay théâtre la rek eh. bari woon nañu ko wax soo bi ne bi ñu taxaw kaw saako yi jabteeri moom yàlla xam na ne nga gis ko si kaw di wax ak moom yomb na trop mais fii askan bi neexul ma fa kenn. moom itam fii ne neexul fa kenn. waaw loolu dina leer néew ci ginnaaw mi ngi ci kanam. loolu. néew ci ginnaaw mi ngi ci kanam. nanu yàlla may wir rek. loo bañ mu ñëw bu ko jàppal bés. bu ko jàppal bés. wax na yomb na mais moom naa koo wax ji naa koo wax ji naa koo wax ji naa koo wax ji naa koo wax ji mais bu ndee ba ba pare ba pare dinaa koo wax ji man. moom moom nee na lu mu wax dina ko def. <laughs> yàlla baax na Serigne Touba wul morom. lan nga wax waa Jandeer dëgg sa combat. combat bii du combat wax combat jëf la Jandeer laa koy lancé Jandeer gi yëpp di woo Boylo bu Kër Moussa Boylo Boylo mi jaay oto yi nga xam ne képp oto bu rafet moom la ku bëgg oto bu wow bu dëgër moom la ak Laye Pythagore doomu ndey Laye Pythagore maa koy woo ci bu baax a baax a baax. waaw di wax waa turu jërëjëf bi yëpp nan xooli boyloo ku bëgg oto bu baax rek xoolil boyloo parce que da ciy jàpp non da ciy jàpp da ciy jàppale nii may wax combat bi moo ma jox oto boobu kooku ni ma foo jëm foo bëgg a dem demal kon kooku amuñu lu fayam amuñu fayam xanaa toog di ko sant rek bu baax a baax di ko ñaan yàlla yokk ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax bu baax a baax a baax di ko woo bu baax ci combat bii nii di woo turu jërëjëf bi yëpp nag ñi nga xam seen doom am na combat seen rakk seen lépp am na combat combat bi nag du combat wax combat jëf la ñun nanu jàppale jàppale promoteur bi aussi parce que promoteur bi jëndeer a dëkk mbër bi jëndeer a dëkk te nag kuy tëgg te nag kuy tëgg ku nekk maanaam kuy wàllu yaan kuy wàllu yaan sa dëkk daa tëggul nañ ñëpp ñëw nan bàyyi complexe bi te wàcc ci terrain bi jàppale ñu il est temps ñu àgg fi gars yi war a fi àgg fi jot na yoon bi na métti na jot na ñu àgg fa te combat bi la gars yi xam ne fa war a àgg lu ñu faa wul ñu faa combat bii ne la yi xam bii nii la gars yi xam yàlla yàlla may wér wér lay ñaan mais après bu wér nga amee li la tënket na ko yóbbale na ko yàlla may wér di ko sant bu baax moom général Malika parce que bi ma ñëpp dawee kenn jël moom moo jël bu ko neexoon bañ a ak man te boobaa du ko ci balaa mais di ko ñaanal jàmm yàlla may ko wér ak tawféex bala suur si yàlla may ma ndam jaajëf naa leen ziar bu baax nag yéen ñëpp joxaa seen wàcc waay ñëw na fii fekk fii général Malika mu jëm digganteem ak jam yi jantal production woo ñu fi dafay bàyyi mu nuyoo Dakar Zero. ñu ngi lay fay ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy waajur di nuyu waa Malika yëmbal benn baraak buun Kër Massar àll ba ñàkk montage Rebeuss di nuyu waa ñàkk ñàkkorop Tivaouane Peulh Daara Thioub di nuyu waa Mambilor di nuyu di nuyu képp kuy bëgg sama laa waa Mambilor maa ngi leen di bëggee bu baax a baax ndax dañ may woo naan ma ñu nit ci lañ bokk te dama fa am ay soppe maa ngi nuyu waa Noflaay bi yëpp di nuyu waa Gorom 1 Gorom 2 di nuyu ñëpp di nuyu képp kuy jege général ak sama ami yi nekk ci diaspora bi ku ci mel ni ñoom Ousmane Diop Boston suma grand ñoom ñoom ñoom euh, sama copain ak sama gaay yëpp ak mag ma àndal képp kuy bëgg général sama gaay ma àndal yëpp maa ngi leen di bëgg di leen siyaar di leen jox seen waa ci waay mais général tamit man ku ne xam na ni man bokk naa ci kii ñi fi ñëpp bàyyi looloo ñu boole rek dañ ko fee bàyyi bàyyi ma fi rek yàlla dogal ñu boole waaw ma delloo si la moom mu ngi mujjee bëri dem ak Ahmed Deme waaw man ma mujjee ci diggante ak Boursin kon amul xalaat dama war a jël rek jël ko mbër mu ma respecté la mbër mu ma naw la te man aussi damay bëgg su may bëree ci làmb ñu jox ma ki fi ñëpp bàyyi wala kiñ ne moo mën ci laay gën a mën a waree sama bopp waaw man su ma naree sempi jaaga xam nga jaaga nga wax su ma naree sempi jaaga dagg sama reliquat bu buñ ma jox reliquat sama diggante ak moom amul xalaat ndax champion la te liñ ko favoriser ma ne loolu la mën bu lamba yaa ci laa fekk kenn du laaj général ndax mën na bëre champion d'Afrique remporté drapeau chef de l'État deux fois amul fu ma duggul ci àll bi toj ko kon kenn du laaj ndax mën naa bëre xeex biñ ne ci la moom la mëne dama ko ciy fekk wan ne ko damaa mën ci bii boor mën ci bee boor. kon nañu wax ak combat ko gën a saf loolu yàgg na ça fait ay 6 ans 7 ans ci ginnaaw xoolal lu bees xoolal dem a canaliser ci ñi fa gën a metti xeex dee ko ci xaar waaw bii nag mooy gën a saf ci kattanu suñu borom di ko ñaanal jàmm ndax aussi ku ma respecté la mbër mu ma fonk la mbër mu ko naaw la ndax champion la vraiment kon tey bu yàlla dogalee lamb boole ñu du def lu dul jox ko wàcc waaye aussi di ko ñaanal jàmm di ñaanal ay mbokkam jàmm di ñaanal sumay mbokk jàmm di ñaan yàlla defal ñu jàmm suñu lamb amaguñ dat di wax ne bu dat dina neex dina yëngu ndax ñaari jàmbaar lañ boole lu neex lu fees dell man damay yëngal ci bii boor yëngal ci bee boor damay ñëw ambiance bu doy waar ñu làmb at bi sifle ma suul samay tànk xaw ma tànk yi ginnaaw su ma arrière day toj sama gàllaaj baaxul ci man suul tànk yi rek dox jëm ci waaw non amul benn problème ñun ay xale lañ tolaguñ fu ñu amee ba fay ñaaxee lu mu gën a jege gën ñoo arrangé lu mu gën a yàgg gën ñoo arrangé bu doon tey léegi-léegi nii pare nañ bu doon suba pare nañ léegi-léegi bu doon léegi pare nañ barki yonent bi bu doon léegi léegi nii pare nañ bu dee suba pare nañ bu dee ginnaaw suba pare nañ jour bu mënti doon pare nañ ndax kuñ dul xaar waroo di xaare ñun xaar ñun kon duñ xaar kenn. waaw waaw waa Jandeer dama leen di nuyu di leen féliciter ndax ku ne xam na ne ay gan lañ ci làmb mais ñu ngi ciy seen waar quoi di leen ñaanal yàlla defal leen continuer ak jàmm aussi di nuyu Tandeer gi tund Jandeer yëpp maa ngi leen di nuyu aussi dama fa am ay soppe am fa ay mbokk di nuyu waa Mboro sama gars yi nekk mbooro yëpp maa ngi leen di bëgg di leen siyaar comprendre nga ñoom Ilimane sama gars yi mafia boobu yëpp jandeer bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàcci waay naan leen làmb ci seen làmb la rendez-vous <laughs> waaw bu dat amee rek mooy loolu aussi di nuyu sama gars yi tamit aw ma seen fay mafia bi ngay fekk nii vraiment ñii aw ma seen fay maa ngi ñoom xam nga petit ba grand la <laughs> kon nag ñoom yàlla leen yàlla defal jàmm sa waay nag taay jeune marié la moo tax mu ngi leer instant bi nii waaw doom day Tapha maa ngi bëggee ñëpp daal di ñaanal sama adversaire jàmm di ñaan yàlla suturaal di defal ñu ndam jaajëf waaw